ñi leen di nuyu bu baax à travers Cheikh Omar Diop ñëpp ñoo dem vers bio ma gis ne am na un peu de retard boo xam ne bu rëy li gën ci lu ñuy consommer mooy loo xam ne dafa bio ñun ñu def bio ci ay xeetu sabo gel de bin ay poudre ay traitement cheveux naturel baume de massage hémorroïde interne ndoxu siti faiblesse sexuelle wala lu mel ni diabète asthme hépatite tension góorgóorlu nañ ba am les médicaments da ngay gis résultat bu efficace te du am benn effet secondaire xam naa dinañ xool semaine bu nekk naka la ñuy def pour proposer leen benn produit bio baax-baaxam ak ay njariñam pour nit ki mën a xam lan mooy njariñu bio salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërë ngeen def